arabe bi ci direction des écoles de Touba. moo nekk ci mujjama Cheikh Ahmadul Khadim muy complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ci ngeen ko xam ci eh, université bi bànqaas boobu ci leen jógee. bile commission pédagogique ñu daal di koy taxawal ci ndigalul xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir ngir ñuy saytu école yi nga xam ne ñi ngi nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba. loolu yi tax ñu daal di amal ab visite ci complexe kër maam Awalo bu Serigne Makhtar Diène bi ñuy woowee kama néew ñi ngi ci bërëb bi amal waxtaan wu yaa ak jàngalekat yi nga xam ne ñoo fa nekk. ñu ñëw xool rek liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké santaane ci ñu war ko taxawoo école yi nekk ci biir dëkk bi lu bokkut ak daara jam def fa leeg majalis baag yu mel noonu ci loolu rek moo tax ñu ñëw fii ñu am ak jotaay ñi fi nekk ci njiital sëñ Maxtaar ak ñi koy jàppale ñëpp weccante xalaat. gannaaw bi la ñu yëkkati kàddu yi di xamle ne li ñu fi gis dal na xel te it dëppoo na ak bëgg-bëggub xalif général des Mourides. waaye gis nañ ni liñ fi fekk dal na xel. gis nañ ni bañ tàmbalee ba léegi ñoom ñu ngi koy ànd ak ñoom. bindu nañ ci plateforme bi nga xam ne ubbi nañ ko pour école yi. ñëw nañ ci réew yi ñu jot a am documents yi jot nañ ci. te ñu ngi koy jëfe yoon wi jaar. dañ leen ca fekkoon ñoom cañ def ci nag ay ay ay liggéey yu a am solo yoo xamante ni macha allah bu ñëpp meloon nii yaakaar naa ni liggéey bi dana gën a yomb dana gën a dalal xelu sëñ Muntaxa euh, sëñ Muntaxa ca xam nga réew yi bu ñu rawantee rek ñi ngi rawantee ci li ñuy tuddee seen xeetu nit ñi ñu am mooy li ñuy tuddee capital humain mawdu bi ngeen xam ne yéen moom ngeen am tey te mooy adab te mooy yar dégg nga ni ko sëñ Mbay Jaxate tënki te mooy lu gàtt ku yaru rek mat a am ku yaru rek mat a xam mu jot a andi ay seede ci taxawaay bu jéggi dayo bi nga xam ne Serigne Makhtar Diène am na ko ci complexe bi ngir taxawu ndongo yi ba ñu am xam-xam te ñu nekk ci ay conditions yu mucc ayib lool muy xamle ne lim fi gis bëriwul ci bërëb yu mu koy gis. li ñu gis fii tamit ci lu aju rawatina ci wàllu yéene ay projet ci yiñ jot a jaaragun yëpp ci yoo xam ne yu yéeme la ci ni ñuy saytoo jàngalekat yi ak niñ leen di taxawoo wala boog ñi koy jàppale ci école bi maa ngi ko fi door a dégg ci école Touba. projet yi nga xam ne moom it am na ko fii bokk na ci jafe-jafe yi gën a fës ci biir Touba. Euh, jafe-jafe dem ak dikk ci wàllu kaaraange ak li nga ciy perte ci waxtu. mu am ci naal bu toll ni wut ay biis yooyu moom macha allah ak it euh, tàggat xale yi buñ noppee ñu mën a am am xëy ci li ñu tuddee formation professionnelle loolu it lu ama ama am solo la. Serigne Fallou Mbacké di kenn ci kilifay complexe Kër Maam Awa Lo bii ay kàddoom di dëggal lu ni mel. personnel enseignant bi nag moom da leen a def dans de très bonnes conditions. ba noppi bu mu xoolee ne salaire yi nga xam ne ne convention enseignement privé yi ñu proposé ci seen grille yi moom da koo xawoon a xeeb tuuti ba tax moom daf ko yokkoon nga xam ne ne lim ci yokk. soo ret génnee retenu yi dana mën a amoindri kii nga xam ne li ñuy dese dana dana dana kii te vraiment condition yooyu enseignants yi xam nañ ko moo tax itam ñu ngi def lépp pour école bi jëm kanam élèves yi aussi ñi ngi ci condition yu baax moom Serigne Makhtar Diène gannaaw visite bi nga xam ne commission pédagogique en arabe bi nekkee ci université Cheikh Ahmadou Bamba amal nañu ko ci bërëb bi nekk na lu mu rafet rafetlu lool yi am ci mbégte bu baax ndax kenn ku ne booy yëngu ci dara bëgg nga sa kilifa ñëw seet si la ki ngeen di liggéeyal mu yabal leen fi teg loolu liggéey bi dara jeey kooku rek lañ leen mën a jox te mooy sëriñ mun Mouhamadul mun taxaa yal na fi yàgg tànd ak wér sëriñ bi ni ma ko waxee rek jël na projet bu am solo te mooy lee mu def fale ca muy université bi wala muy complexe bi nga xam ni ni mu toll ak yaatuwaay ak ya fa nekk yëpp mel na ni ci yii la ñuy toggee war leen a jox kon na ngeen ñëw ni ñu doxale leen nii defee leen nii loolu sant nañ ci yàlla bu baax sant leen ci ci jataay bi. ngir gën a tàggat jàngalekat yi ba yokk seenub xam-xam ñeel ndongo yi loolu Serigne Makhtar Diène di xamle ne fas na yéene bay ci waaram te du yem ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci complexe bi su ci dëppoo amee dina daal di taxawal journée bu ni mel. ñu ni danañ fas yéene. ñu jéem a xool kem kàttan jéem a def yoo xam ne sax danañ ko mën a woote. jéem cee jàpp ci dikk bi ñoo xam ni ñoom danañ ko jël en sarce boo xam ni danañ fexe ba de organiser loo xam ni ñëw seet sëñ naa ñoom seet si leen ngeen ñu ko mënee may ñoo xam danañ jël ñoo xam ni sax duñ ko yemale ci daara ji waaye danañ ko yaatal ba ku ko bëgg ci Touba ñu mën koo defee ci daara ji loolu incha allahu rabbi ñu def ko muy ab ab ab liggéey sunu barkeelu foofu. cig fàttali atum ren ji la njàng mi daal di door bi la complexe mën a jël ay junni junni ndongo te seenu nekkin saa su nekk muy gën a mucc ayib lool bus bi ngeen di gis ci bis bi lañu ko daal di daloo mu fekk si bi fi nekkoon ngir muy mën a yombalal dem beeg dikk bi ndongo yi fi jàngee loolu yi feeñal contentement bu rëy ci élèves yi nga xam ne ñu ngi ci complexe bi.